caat xool ma man la aboy aboy liggéeyantewu ma la xooluma la soraalewu ma la xam nga dama lay duma dama lay daan lakkaat dinaa la jàpp dóor la daan la du yaa may téye du yaa may dóor du yaa may daan en maa lay dóor maa lay duma maa lay daan si doo si mun dara doo si mun tus xëy laa dañu maa yónnee yàkkamti ma lébu yi ñoo ma yónnee yàkkamti ma yow munoo maa téye munoo boobaa dinaa la jàpp dinaa la duma dinaa la daan te maay kii lay freiné du yaa may freiné incha allah toujours xaw maa koy maa la gën a nekk xale maa la dàq bëre maa la ëpp doole. mag nga moo la jàppee doo doy dinaa la wan tey waa Dakar li tax ñu bàyyi la fi wan na leen caat du tuus. yow ngay paa bu jour baa xam ne doo dërëm bu jour baa xam doo bëre doo puus doo paas. te dinaa la daan ba pare sama reliquat dinaa si yëkkati paas may la ko bu ko defee nga mën see defalee sa bopp. abo yow damay yow maa lay daan en contraire maa lay daan jox sa reliquat nga ñëw seet si ma ma ma berne la nga ñibbiwaat dugal ba sa koñ nga ñibbi. incha allah da ngaa juum fi nga dal baaxul yi fi ñëpp bàyyi yaa ko jël dinaa la wan ne doo tus moo la jàppee doo doy bu subaa da nga dëggal sa bopp bu aareel benn paa ma taxaw nga taxaw ma fekk si la jàppaloo du ma la daan la si doo mun tus asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV bal bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ma ko taamu di defee rek noonu laa ko defaatee ñëw seet si ndaanaan champion muy xale bi nga xamante ne dafa nekk ci yoon muy Jacob Balde sama doom ndigal nee naa ko dama laa mere ndax sama doom nga daan waaye garaaw loolu dara euh, Jacob démérité woo bëre nga def nga li nga war a def yàlla xañ la may ki nga xamante ne mooy ndigal ma lay encouragé di ko félicité ndax danga doon daan ay doomu jàmbur muy neex ci yow kon tey buñ la daanee dina métti mais tamit du garaaw day tax nga gën a xam nga dem defaru jiwaat ki la daan champion la moo la jiit ci làmb tey boo ko daanoon it day métti ci moom donte gëj na ci làmb ñu lay encouragé waat bu baax a baax a baax di la wax ne que démérité woo comme ni may wax nee naa man bañu ma mbër bu daanu mbër bu daanu ci yaafuus laa bañ te wax dëgg neex yàlla sama doom def nga loo war a def lépp maa ngi lay nuyu di la bàyyi suñu mbokk internet yi à travers Baol TV di la wax ne que di courage. waaw ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent di sant suñuy jaari waajur waaw di ñaanal mu nekk suuf si kawam di ñaanal si yaay yàlla bàyyi ko fi ba si kanam ak kanam ak kanam ak kanam kanam waaw mu fekkee lépp di gërëm waa Pikine waaw di gërëm sama papa yi nekk ci kër gi. sama papa Jules Ama Demba Paate ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di gërëm ñoom Malo Seras mu tombo gars yi gis naa seen taxawaay daal ak ñu jàpp si combat bi tamit BBC tamit ñu ngi koy gërëm ci combat baax a baax a baax a baax waaw di gërëm waa Kayar waa Bargny Ngor Wakaam Yoff Tubaab Jalaaw yéen Bayaax waa Jandeer waaw tund waaw ak alaaji bay tamit <laughs> tund lébu gi yëpp di waaw di masaw sama xarit yi waaw dañ daan bëree di daan suñ daanoo dañuy sant yàlla bu baax ay jaamu yàlla la yàlla lu mu def rek da di lu gën ci nit ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaw macha allah ah, comme ni ko waxee ñëwoon naa jël si la avant jël si la tey après après bi mun nañ ne neex na neexut yow ndax ku ne xam na ne defet neexut waaye yàlla moom moom mi saña def lu mu def danga koy nangu yow jaam bi te ñu ñëw ci wàccaay bi diggante Jacob ak ndigal woon nga ma adversaire yi bokkuñ ndax moo gën a diis ñu fi doon jaar tey bi nga tàntee sa diggante ak Jacob li sa diggante ak li nga doon wax moo feeñ que dafa diis ndax gis nañ ne zongole nga muta nga forcé muta bi arbitre ñëwal ci combat daa arbitre dafa ma doxal ci kawam ma dox ci kawam ma wax ma bëree rek noonu laa bëree li nga bëree consigne waaw day xëy noonu lañ daan bëri yàlla di suturaal suñ ñëwee tey ñu daan ñu dañ ci sant yàlla rek comme li nga rek ñun am nañ gëm-gëm goo xamante ni xaw nañ ci signature waat ci barki sëñ Saliou mais suñu gëm-gëm la loo xamante ni dañ ko gëm. sëñ bi tey xam nga ñëw naa ci diis bi yooyu mais comme que indi nga dugal nga waat bi léegi dañuy ñëw ci waat bi ñu continuer làmb ji waat bi lan moo la ko def tàngoor la wala dafa am li tax nga waat lan moo xam nga kuñ tudd sa waajur moom par force di nga dem ak sa gëm-gëm te ñoom nu ñuy demee dañ ko gëm sëñ Saliou duñ ko waat si ay caaxaan sax malgré yàlla démb ndigal la àndal ñu ngi koy si sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal ndam li jikko ci barke alxuraan ñun am nañ carrière boo xam ne dañuy suivre lii da di lu gën ci ñun mënoon nañoo daan ndigal mu demee ci ñun neneen mais defet bi dañ ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw moo ñuy def leneen ëllëg incha ñu ñëw ci géew gi comme li nga wax avant nga ne dafa moo gën a diis ñi fi jaar nga tante wax naa la ko léegi demul mu diis tante nga zongale mu diis la moo tax nga doon forcé waaw xëy na boobu fukk de jeunesse la rek fukk de jeunesse la rek ndax mënoon dañ ko gérer gars yi ñu ñu doon wax ay seconde doo si des mais xam nga bëggoon ko daan coup à coup rek looloo waral loolu hmm. mhm. ci biir bëre bi lan nga gis ndigal nee na bëre mag la la wure ngeen wure am na ci bëre bi. waaw ah, moom da daw rek xawul fenn <laughs> ñu ngi koy sant bu baax a baax xam nga soo daanoo moom après ngay gis faa yàlla baax na hmm. waaw li si kanam moo dàq. mais min nga doon bëree ci gis nga ne kii dafa ñëwoon pour bëre si wala da ngay jàpp ne moom lam doon wax ne que du bëre loolu la dëgg. waaw ah, loolu la dëggal de bu mu ñëwee daa xool day taxawul maa ko doon attaqué rek moom deful dara daa mu fournir fournir ba soon juum daan ma. kon moom li muy wax euh, da nga koy dëggal dalaa wuureloo wuureloo nga jàpp ne jeexal na fi ngay jàppee ne jeexal na mu nax la daan. leer loolu de. ñu mhm. nga daanoo da nga boobu ñu nekk ci ginnaaw rek. mel ni sama yaay jatu gay sama xarit yi ñu sonnee ci bis bi comme fii nga ma fekk ni pertam maam moom ñu ànd dox lu bare bari bari su ma leen xalaatee rek du ma bëgg a jub sama rax yi ñoom Pokola Babacar Ousseynou Mané gars yi waa saal bi léegi léegi dañ ma doon woo téléphone ñoom ñëpp ku si mel ni Boyzil pa bi maa leen ñaanal ndam billahi su jógee fii léegi day dem entre entraînement ndax ñoom dañu am combat dañ cee war a taxaw bu baax baax baax baax lii ñun ay xale te làmb moo baaxoo lii ku bañ a daan doo tax ngem waaw ñaan yàlla mu doon seen defet bu mujj rek. suma ma juumul trois actions première action bi dañ doon jéem a da ngeen a dóorante gauche droite nga mbàpp bëgg a dugg ci ngemb bi mu bëgg la wër noonu foofu lan foofu est-ce que foogoo ne foofu làmb ji bu la jàppoon du jeex. bon ndax jéem nañoo xëcc xëcc xam na ni mënuñoo xëcc ndax lu mu yaakaaroon moom xam na ne amul bu baax a baax a baax a baax pour moom moom ëpp doole ñetti yoon mais taw féex daal sax bu baax dañuy continuer seen i entraînement rek. deuxième bi mu bëgg la wër nomb boobu tamit nga rëcc génn si. non moom force day mimé noonu rek su forcé woon jàll dama koy mbal man dama ko gën a xajal sax pour mu dem mais demul. waaw. waaw mhm. <laughs> xeluma. bërikat la jàmbaar la kay ñaanal bu baax la. nee na loo xam rek moom xam na ko xeex lañ la digal xam na lépp dalaa xam taxaw bi xaar loolu mooy wax lan la. waaw <laughs> xëy na moom xalaatam lay wax rek si moom kenn xamul dara yàlla xam lépp ndax ñun taxaw waat ci sëñ Saaliw dañ koy daan te daanuñu ko moo tax it kenn xamul waaw. mais bëri bi euh, xeexloowuñ la nañ taxaw nga taxawal nga samp jaaga raag ak moom loo am. ñëwal sànniku mu sànniku ga jiwaat loog moom jàpp ko daan loolu lañ ma gënoon sax wax waaw. maanaam rek nga tegoon sa bopp. loolu Mm-hmm. tey li nga am ci moom mu am trois avertissement yow amoo benn lamb ji dem bay waaj a jeex nga waroon a gérer làmb ji tey nga doon force kut koo kut ne nga daan ki nga xamante ne mooy ndigal jël normal bi moo la doon gënal décision arbitre wala la loolu la fa demee nag jël normal bi moo doon gënal foofu te temps bi man demoon na benn instant xaw moon sax temps bi nu mu demee waaw gars yi ne ma seconde doo si desoon rek pour nga moom victoire bi ndax victoire noo ko amee baax na mais daan nit daal ba toog si boppam moo ñu gënal mais sant rek mhm, sant bu wér. léegi bi nga ko tibbee noonu ngeen di dem pois moo la daal wala bëreem moo la daan lan moo la daan loo jàpp sama tànk laa dugalul bu baax loolu laa yaakaar ne moom daal ndax cabaxal bi su gënoon dugg ba mu ma lonku tànk bi yaakaar nañ suñ demee ba suuf man maa ko gën a gaaw mais tànk bu ñàkk a dugg bu baax looloo ma gën a daan. poids baissé waaw ndax rotation bu gaaw la rek. moom xam xam nga dafa jege suuf si par rapport ak man moom centre de gravité moo gën a jege suuf si mun naa yaakaar ne yegg na fekk xaajagul sax. Hmm. léegi làmb lan la la jàngal sa diggante ak ndigal lan la la lu bëree bëree bëri waaw xam ne taxaw di waat daal <laughs> waratu ba lu may def dinaa ko def ci biir géew bi hmm. Hmm. waaw gën a jàpp sama papa gën a jàpp ama gën a jàpp sama famille. waaw ak samay xarit sama yaay jatu géey maa ngi baax a baax coono gum ci daj lépp gis naa ko moom nee na écrit euh, yow la ci Ama la jëm wala maalo maalo Seras moom ñemewul jël avance am nee na ba tey mu ngi teg siège am Dominique ca rond point ba mbër bu taraafee versé mu faxas loolu boobu la boobu la mbër la am na droit défier ku ko neex mhm. te ko wax Pokola mais Pokola xëj na nee na yaa bës tax mu jël la mais konoon Pokola lay jël waaye ba tey weesuwut nee na daal ba tey mu ngi foofu. su jëlee Pokola dina xam ne jël na mbër. ñun. waaw loolu naqari ko. bëgg a jël rek ba jël hmm. dina xam ne la. <laughs> dina xam ne benn yoon lay doon waaye du doon ñaar. lu <laughs> leer. nee na dangaa soxor nga ko dóor yu am na moment nga dóor ko nooyam bi fàtt mais mu géré ne ko euh, matt borom borom yi bañ mu ne ma réewande la de <laughs> kan moo déclenché moom moo ko déclenché de te da ko dóor sant rek moom ñu ngi koy ñaanal gudd fat rek moom wér waaw yàlla baax na di ci kanam raw Mm. bi ngay dem làmb ja gars yi dar la ñëpp ànd ak mun nañ ne sortie bi daan nga génn mais dafa mel ni bii moo gën a doy waar bi nga gisee nit yi topp la Jacob lan la teg ci loxo nit ñi lan la doon lan la yóbboon stade ndam rek ndam leer sax nit ñuy génn nañ gis nañ public bu ma àndaloon yëpp mais comme naan yàlla moom suy defa day mel ni lu yàq mm. waaw gars génn guñ génn loolu rek cat mun na see dugg <laughs> ba lay xew-xew waaye sant yàlla rek wax gaa yi ñu gën jàpp rek xam ne su naree neex day metti mystique feeñu fa benn combat su xoolee peut-être galaaj yi bari na ak yooyu mais doo gis benn mystique de ndax fonctionné naa maag moom yëpp def nañ lu ñu war. Mhm. mais day mel yaram day day yaram bi tekkeeku jël gàllaaj yi sànni mais di sànni say ce que wóor na di nga ko di nga retrouver at kii gàllaaj. gars yi dañ koy <laughs> xam nga ndigal gisoo téere yu ma taxoon sama ndigg bi sax la jàpp loolu bokk na ci li ma gën a sonal ndax day jàpp fu ma bëgg a dem moom day bu max loxo yi rek téewaat ma. Hmm. moom bëree mag la bëri. waaw <laughs> hmm. ba fi bëree maa jàng comme nu ma ko waxee rek. yëpp ci billahi billahi mooy loolu français laa ci nii rek waaye ci biir géew bi moom dafa français japonais laa fa. mais nag ku lay waajal na pare xam ne sa combat day métti day yàgg da ngay yóbbu nit ki ba analyse. <laughs> baax na xëy na yàllaay dogal loolu rek mais bëgg nañ di bëri combat yi gën a gaaw ci combat yi. waaw ndax loolu moom neexuñu ñëw fii di bëri jëmale suba di daj ay coono yoo xamante ne bu comprendre. di teg nit ñi stress yoo xamante ni mérité wuñu ko bëgg nañ seen combat di gaaw mais bis bi moo di toll rek. Hmm. tey lan ngay wax say supporter say soppe lan nga leen di wax. di leen masaw rek di leen masaw di leen wax de làmb nii la tey da ngay daan ëllëg ñu daal tegle naa fi ñaata victoire tegle naa fi ay huit victoire xaw ma neuf victoire kon tey su ma ñëwee ba si onzième combat bi daanu damay sant yàlla hmm. waaw. may sant bu baax a baax a baax a baax. am na defet bi dañoo gën a jàngal ndax ñu ngi doon demee alir boo xamante ni waaw dépassé woon nañu. nii day taxaat ñu am pas de recul xalaataat xam fu ñuy teg suñu tànk xam foo xamante ne war nañ faa jaar waruñu faa jaar lii war nañ koo def waruñu koo def. fu mu toll nii lu lépp da waaw toujours sama loxo papa rek papa fu mu ne la rek foofu la def amuñu sax li ñuy xalaat. ñu tëggalaatoon combat suba dañuy bëri jiwaat incha allah. am na ñu bëri eh, ñii mere nañ la ñii merewuñ la nee nañ yaa yàq sa komba ndax am na moment boo xam ne làmb bu fa yeggee da xam ne eh, bis bii da koo jaar mais nee naa la bésu ñàkk du bésu am tey ñi mere seen xel rek la ñuy demee ñooñ lan nga leen di wax ci maanaam da ngaa waroon taxaw tey sa bopp làmb ci ci eh, wax nañ dëgg de <laughs> wax nañ dëgg dit part wax nañ dëgg mais comme ni nga ko waxee rek bisu ñàkk moom du bisu am dañoo waroon ñàkk rek moo tax mais ñun maa ngi ma ñëkk ba ñu bëree ba xam ne moom ëpp avertissement dama taxaw gérer sama làmb xam ne bis bi waruma ko parax parax ak yooyu bu ma amoon foofu laa manqué démb loolu rek a ma manqué du rek. Hmm. pourtant sa papa <laughs> sax. yow li nga gis rek mooy jong. na daa wala dëbb naa wala caxabal loolu rek nga gis. aca ah, jërëjëf kon maa ngi lay jaajëfal di la kontaane ma bàyyi la suñu mbokki internet yi à travers Baol TV nga nuyu ku la neex gërëm ku sax saf fu mu nag xam naa baalo àq bi mooy ëpp waaw di baalu àq ñëpp rek waaw <laughs> soxna si tamit ñu koy basaw bu baax a baax a baax ko ñaanal moom jàmm gu wér wér wér mhm, moom ak ay famille di nuyuwaat sama bàjjen yi sama papa yi waaw leen masaw coono bu baax a baax a baax a baax ak waa équipe bi tamit waaw maa ngi leen di masaw bu baax xam ne ñëpp ma yéene woon ndam waaw gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax paa soq maa ngi koy jaaral mu am ndam ci kaw Talfa Boy Zil mu am ndam ci kaw Fourière ñu am Jacob 2 mu am ndam mbay bu dul yaay kati tamit mu am ndam équipe bi daal ku ci am ko bàyyi a nga am ndam. waaw <laughs> Jacob 2. war na bëri ko combat le 4 février incha allahu rabbi waaw ñu ngi koy ñaanal ndam lu kawe jootam ci barke alxuraan ñu am combat daal ci équipe bi ñëpp yàlla may leen ndam ñu amul combat nag yàlla defal leen ba incha allahu rabbi mhm. di ñaanal ñëpp jàmm waaw di sant ñëpp tamit ñu si jàpp ñëpp wa Ngor Wakaam Yoof Tubaab Jalaaw Kayaar Bayaax Jandeer yéen yéen kaw yéen suuf waa ñaŋal waa Tëngéej waa Barñi Caaroy Ndar fukki pej ak ñaar yëpp ñu ngi leen di lii waa Fatick waa Diofior waa Ndiosmone Palmarin Caajaay dëkk séeréer yëpp ñu ngi leen di gërëm waa Fibla waa Joal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak waa Passy waa Foundiougne sama xarit yi tamit mention spéciale gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax ñu si mel ni Pape Sidi Thierno Papa Fall Cheikh Baye Fall Omar Daa Daabo ñoom Ndol ñëpp. gars yi jàpp nañ daal jàpp nañ ci bu baax a baax ay ñoom Pikine Dakar ñoom Malo Seras mu Tombo Cheikh mu Ndeye Diaw ñoom Aline Fall gars yi jàpp ñëpp mënu ma leen a lim. dof Pikine nu def ah <laughs> jooyloo sax ñëw naa si kër gi mu jooy fa jooy yu métti ñoom ñëpp ñoom Babacar ñoom Pokola yi daal ah, xam naa am na fu ñu ma teg daal maa ngi leen sant bu baax a baax di santaat yàlla bu baax a baax di gërëm père tam nga xam ne comme li ma lay rek moom day sonn ci man mm. waaw ba ma dul dara lay téye ba ñuy nii du benn yoon maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëmaat sama yaay bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di sant ñëpp di bi waaw bi maa soo spécial koo xamante ni sa mbir da siy sonn moom. doo def lu dul di ko sant di ko gërëm yow tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax a gërëm di la gërëm nga ci bu baax ak waa bari si tamit ñoom Pa Diallo ñoom Lamine yi daal ñoom Maxa Souleymane saajo Badou Mbow Demba ñoom Gara Tafa Gara Diop Gara Madiama Diop tamit taxaw na ci bu baax a baax a baax a baax a baax Maris daa mel ni fa laa juddoo wallaay seen taxawaay dafa ëpp maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. ñoom mar wax Ngouda maa leen di bëggee bu baax waaw di gërëm bu baax a baax a baax a baax. ayca mbokk yi jërë ngeen jëf comme ni ma ko euh, tàmm di defee rek euh, ñëw seet si ki nga xamante ne mooy Jacob après défaite bi làmb la ku bëriwul doo daanu nee naa leen bañu ma mbër bu daanu mbër bu daanu ci yaafus laa bëggut man pël di kontaanee ndigal wax dëgg neex yàlla demb avant caméra yi di tàkk dama ne ko dama laa mere sama doom nga daan mu naan ma may sa mbër xam te loolu yëpp fair play la lépp ci làmb la bi ma ko demee jëli avant muy bëre ak Jacob dama ne ko sama doom ngay bëre mun ma maay sa xarit xam nga dawul moytuwul deful dara lii daan bër ci géew gi la nekk gars yi ngeen nekk nit xam ne àdduna yàllaa ko moom comme ni ma koy waxee di encouragé waat Jacob di ko wax ne ko làmb noonu la xale nga ñàkkoo dara yaa ngi ci sa yoon euh, di jaajëfal ñëpp di jaajëfal Badou rawatina diaspora bi di bëggee ñëpp di bëggee Idrissa Kébé sama Idi borom Amérique yàlla na sa jaamu yàgg di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jaamu ndax nee naa leen lu jaamu jaamu ko di ñaanal ñëpp jaamu di leen jox dig daje si beneen daanaan beneen sampion waaye du ma fàtte Moodu Moodu borom Birios doore Kër Aram ma gërëma la waa Giro Jacob nee na mu ngi leen di gërëm waa Giro Jacob nee gërëm na leen nuyoo bi sama loxo la ko teg ma teg ko ci loxo kan ci laay laayloo nuyoo bi teg nañ ko sa loxo Modou di euh, Modou pâtisserie Kër Aram nekk fee ca 15 en face police bi maa ngi lay bëggee di la kontaanee baax gën bëgg ma di bëggee coro sama mag sama xarit borom ndékki neex yi set sell yàlla seen jàmm yaag Aysata Faat Siise Daba tonton Cheikh yéen ñëpp maa ngi di ñaanal jàmm awa yàlla seen jàmm yaag ku lim rek dafay juum bàjjen bàjjenay baay maa ngi lay bëggee yow tamit ku baax nga yàlla na seen jàmm yàgg di leen jox dig daje rek ci beneen daanaan beneen champion merci beaucoup